أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ñu dellu sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa bu baax a baax a baax suñu kilifa diine yi di leen yàlla gudd fan ak ak wérle jiitu yàlla na leen yàlla xaare àjjana ñoo ñañ fa fekk ak ña leen fa fekk ñi ñaanal bu baax a baax tubaar fa kàll suñu waajur yi bu baax yàlla leen yàlla xare àjjana di nuyu bu baax a baax ñi ci hôpitaux yi yàlla yàlla fëgg seen bopp yàlla buñ leen buntu sag koo xam ne ordonnance buñ leen bindal ñu am lu ko defee hôpital metti na trop rajo yaa ngi fa analyse yaa fa scanner yaa fa te bu ci ne xaalis la laaj waye ñoo ngi ñaanal yalla képp ko xamni yalla natto la sa yaram sutante bo démé hôpital yalla na la yalla wërsëgale li ngay jëndé sa ordonnance bobu amin ya rabbil alamin ñu ñi bu baaxa baax ñi ciabi fété ginnaw di leen ñaanal yalla di leen wax ni rek jambi lu yalla dogal ci mom il faut mu am suñu borom kenn mënu ko rëcc ñi té lay tëkku sax nga rëcc mais suñu borom kenn mënu ko rëcc lu mu rëdd sa je il faut mu jaar ci kon yal na yàlla may leen xolu muñ te yàlla gaaw leen génne balaa yàgg amin may nuyu bu baax a baax mbokk téléspectateurs yi di leen ñaanal yàlla di leen wax ñu jàngeen jëf yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo Prestige TV yàlla yàlla gën a dëgëral suñu ànd yàlla na yàlla lafal ñu cat te yeggale ñu fi nga xamante ni le DG Pape Doumbouya fa la bëgg télé bi yegg fa yàlla na ko fa suñu borom yeggale DG xam nañ sa yéene ci télé bi xam nañ sa yéene ci say personnel kon yal na ko suñu borom mottali amin yaa rabbil alamin ci barke weeru koor wi ñu dugg nga xam ni lépp lu ci suñu borom def xéewal la suñu borom yal na ci jokku yeggale télé bi fi nga bëgg mu yegg fa mooy mu nekk foo xam ne fu waay toll di ko séen ndax nag yow danga koo bëgg fonk ko ba yàlla xam na ni position bi nga indi précise daanaka yegg na million pour rekk ku zappe yem ci moom nga xare ko rek ne dama bëgg sama télé bi ku ci zappe rek yem ci moom waaye tubaar fa kàll ah macha allah laaw la cat yàlla na yàlla dolli daal wërsëg gi jàppale ci xam-xam gi macha allah mottali sa yéene yal na ko suñu boroom def amin yaa rabbil alamin may nuyu bu baax a baax sama yaay yi leen wax ñi jàngeen jëf sama yaay mënuma leen a fàtte di yàlla sama yaay ja yal na ko yàlla xare àjjana ak ku fa fekk yàlla xare àjjana tubaar fa kàll may nuyu bu baax a baax sama ami d'enfance yi fàttewuma kenn maa ngi nuyu ñëpp su ma limee rek dinaa jum te kon duma fi jóge te tubaar fa kàll dama ni comme ci actualité lay dox na dugg ci actualité dina am solo may nuyu Moussa Mbaye bu baax baax koku sama partenaire la dama ni ragal pété day xagne wërseuk Moussa Mbaye ma ngi lay nuyu Moussa Ndiaye wa alimentation tubar fakal la ca marché di talibé serigne Mansour ci borom daara ji ma ngi di nuyu bu baax jàngeen jëf amulen morom moroom yal na yàlla dolli seen sutura te yalla yeggale len fi ngeen bëgg yegg tay nak dama bi dem kérok dama limone su ma ñëwee damay dugg ci ñi nga xam ne weeru koor ba weeru koor lañuy julli ñooñu laa bëgg a laaj loolu fan lañ ko teg ak ku leen ko sant ki leen ko sant laa bëgg a xam kan la seen naf su bakkan rek lañ toog xalaat ni lii moo leen neex lii moo leen arrangé lii lañu am jotam lii lañu am ñàkk pexe pour def ko ndax xanaa da ngay rusa woor tëdd toute la journée te dëpp sa jëbbi ci suuf am na ñoo xam ne loolu la complexe moo leen ci dugal waaye damaa defa ni onze mois nangoo sëgg sa jëbbi dëpp ko jaamu yàlla suñu borom ba benn weer bi nga ne xaaral ma dëpp ko ah kun fa yakun kenn mënu koo nax ay ku yaakaar ni moom ngay nax mom nak dafa patient ak a mën xaar Lo xamni ci loxom bi lay mucc lo xamni wiri wiri jaari ndari xam na ni kenn du ko fi recc kenn kenn du ko fi recc motax yakanti wul ci ñun dara dara dara dara day tok rek xaar xamni to tak? Mom mom ki mom lañuy delu ci mom lañuy delu gisuma kenn koo xam ne mën ngaa bëtt barrage wala nga burum lu wala nga wër ko nombat amul au contraire wër nomba boobu moom moo ñu ko def moom ci boppam moo ñu wër nomba dafa fekk ni li ma naan moom ci boppam dafa maanu dafa mën a muñ ba lu mu ko def ak lu mu ko naqari naqari du tee la mu ñu war a jox mu jox ñu ko la mu ñu war a may mu may ñu ko du ñu yàqal dara ñu naagu rek dafa ni loolu mooy wéy dafa ni loolu mooy dem ah ah dañu juum mbokk yi julli éternellement la kooku fekk sangoowoo suuf dalaa war ak nu mu la mën a bind rek wàccu la billaahi ak lu mu la mën a binde say cër manqué woo cër matoo ngay silmaxa maa ngi jéggulu ci baat bi waaye lu mu la mën a bind rek natt bu mu la mën a teg rek julli wàccu la waaye lu tax yow nga foye fukki weer ak benn koor gi jot nga ni damay julli yaa ko tey julli sa xel la ngay foye billaay sa xel ngay foye julli <laughs> wàccu la nee naa la léegi wàccu la ba ba ngay sukuraat wàccu la kon kay nga xam ne boo boo boo jëlee fukki weer ak benn jalax fële jël benn weer bi ne dinaa ko julli dangay nax sa bopp waaye moom kenn mënu koo nax moom li ñu koy def muy muñ yépp sax dafa bari ndax ñun bu ñu amee bu ñu xéewal bettee ñun dañu koy fàtte mais su ndogalu yàlla boo xamante ni tiis la ñëwee ci moom la ñuy dellu doo dégg lu dul ay yàlla ay yàlla mais su xéewal bu dikkee billaay keneen la ñuy tudd keneen la ñuy jàmbat ni moonu ko jox daal di koy fàtte moom te kat ku ne war naa xam ni lépp lu waay jot ci xeetu xéewal moom la moom moo la ko jox du kenn ku dul moom moom jàngal nañu boppam ba tàyyi waaye ñun muusuñu muusuñu lu la bëggoon a noppalu lu waay am danga ko ko yéene billaahi lu waay am rek danga ko ko yéene dangay nekk ci fami kenn rek la fa yàlla sempi jox ko alal ji mbaa nga nekk ci famille yàlla semp ci kenn rek may ko loo xamante ni moom moo fay jàng alxuraan ba ni ar nga baa nga nekk ci famille yàlla jël ci kenn jox ko koo xam ni mooy yor bayre ba waaye léegi soo bëggee noppalu yow sa jëmmi bopp doo ko ko nangul déedéet dañu koy soxorante fàtte ki ñu sàkk ñun nag lool ci lañ dëkk ñun toujours wax naa ko léegi su ndogalu yàlla bu neex amee dañu koy fàtte jaa jëf suñu borom doo ko dégg de jëf keneen ngay wax waaye bu ndogalu yàlla boo xamante ni neexul bu dikkee il faut nu daw dellu ci moom nag mu ni wan boppam rek fu mu fu ñu toll mu ngi wan boppam di leen wan ni man rek maa fi nekk kenn nekku fekk dul man waaye ñun dañu koy dendale fu ñu toll ñu ngi dendale yàlla ak keneen fu ñu toll rek ñoo ngi koy dendale ak keneen waaye yow xanaa war ngaa muus sax yow gisoo ko tegoo ko bët foo bind rek wàcce ñu wax ni moo wax nangam ak nangam bi te it nag sax warulaa jaaxal soo ne jàkk sa jëmm rek xool sa cër yépp mu mat am nga juróomi baaraam say tànk nga xool sëgg baaraam yi mat ngay lekk muy rees war ngaa xam ki la fi indi mooy kan mais ñun dañu koy fàtte waaye lu tax ñuy jël ñun ki nga xamante ni nit la comme ñun yàlla sàkk ko sàkk ñu ñu jël bu lu baax amee ñu ne nit ki la bu leneen amee ñu ne suñu boroom la waaw moom yàkkamtiwul daraam <laughs> kenn mënalu ko dara de billaay kenn mënalu ko dara ba tax na weeru koor wii ku daawu julli te ne weeru koor laay julli maa ngi lay ñàll ci kàttanu yàlla ak mbaaxam yàlla na nga fa jaare nag di julli julli yéen sëriñ su baax ci suñu mag ñu baax ñi fi nekkoon ku ci mel ni maam sëriñ Touba ñoom sëriñ kër si Hmm? nga dem ñaseen dugg fa xoola yoof mag gàmmu girée gi fay am waaye lu tax ñun royuñu ci ñooñu te booy giñ rek ñooñu ngay giñee fan nga jokk ci ñoom te ñoom mosuñu kafe yàlla mësuñu fowe yàlla ñu bëgg a jël julli rekk def ko loo xam ni daf ñuy neex rekk ñu def ko bu ñu neexul duñu ko def moom daal booy seet sax danga naan ah julli man mang ko jappé kom pass bi ngay jëndi suma ko amé connecté wu suma ko amul duma connecté wu <laughs> ak am sens ci connecté wu ak sa borom yo yoo tis ba jotee war nga connecté wu ak moom san bu jotee war nga connecté wu ak mom timis bu jotee war nga connecté wu ak mom ge bu jotee war nga connecté wu ak mom waye duñ ko def de dañoo juum juum bu réy léegi nga gis koo xam ne day woor xëy suba ba ngoon jot billaay du dëpp jëppi soo ko waxee xam nga lu muy wax damaa sonn xiif mënuma koo booleeg julli xiif mënuma koo booleek julli léeg nga daj lu gën a métti xiif léeg nga daj lu gën a métti xiif léeg-léeg nga jànkoonteeg lu gën a métti xiif ndax léeg-léeg nga xëy mun a tollaak problème boo xam ne dangay yéeg ak a wàcc dangay defa yow tey jii buñ ci waxul kaso ba ngay fanaani loolu gën tamit jaamu yàlla suñu borom moom moo ñu ko teg daf ñu fay wàcce pour ñu jaamu ko mais ñun dañuy koy dañuy fàtte rek loolu pour lan ñun daf ñu fay wàcce pour ñuy fo di def lu ñu neex mais ñun dañ ko war di delloo sax njukkal nag léeg-léeg nga soxla soxla boo xam ne dangay toog dëmm ne man fan laay jëlee lii fan la lii di réglé da ngay jékki-jékki rek billaahi xéewalam ak mbaaxam ak ay dem dikk wàcc sa kaw loo doon xalaat mu faju waaw lu tax du ñu ko delloo njukkal lu tax ñu koy fàtte ci loolu nañuy delloo njukkal yàlla suñu boroom te billaay julli gi mu ñu sant yàggul yàggul wallaay toog di jëw a gën a yàgg julli toog di lekk moo gën a yàgg julli da yek say morom di xaqaloog ataya kii ki mo gëna yag julli téeméeri junni ak yoon julli yagul waye ñun ndey defe nañ ni julli day jël ci suñu temps lo xamni ni dootuñu ko dabu effectivement julli warta xam sa soxla warta xam sa am jot wala sa ñak jot lu mu la fekkee yëlëbal say loxo ba mu set nga dem jàppi julli ndax su bëggee jël sa ruug yi du xool ndax yaa ngi liggéey du xool ndax tekki nga ci sa famille du xool ndax yow rek la sa yaay am du xool ndax yow rek la sa baay am du xool dara soxla na la daal daf lay jël ak loo représenté ci sa famille ak loo mel ci kaw suuf bu la soxlaa daf lay jël yóbbu kon bu fi tegee julleem gi nga xam ni ah boo ko jaaralee na mu war a jaarale sa xel mën naa dal say bokk sax boo wanee ginnaaw seen xel dal kon julli jar naa fonk julli jar naa fonk am na ñoo xam ne duñ dëpp seen jëf feek dégguñu ñu ne fenn dañ fay julli salaatu tasbiya ñu daw ni ñu ngay julli ji waaw loolu fa loolu pour lan yow julli normal bi doo ko julli te fo deg ñu ne ñu ngay jël ñu ngay julli salat tasbih nga daw ne xaaral ma daw julli ji xam nga boy dem pour lan nga motax nga dem xaaral ma sama sama bàkkaar yi jéggal mako wa yalla dañ ko mëna naxé non nak wax deug yalla nak julli ga la jaral nga daw jël sa kol sangu dem julli nga julli ga ci ay 10 minutes lay am budé bari na paré nga ci yow daal nee nga julli naa salaat tasbiya bi jeex na samay bàkkaar wàcc na ma soo toogatee dégg ñuy nodd sax sa ci ne toujours yaa ngi jokk ci ne julli naa julli boobu am na ñoo xam ne julli boobu rek dañuy dëpp seen jë ci suuf julli boobu kese kese kese ndax liñ ci ne boo ci jéggaloo yàlla mu jéggal la waaye bii da koo santaane pour chaque jour saa yi waxtu jotee ñëwal nga jaamu ma ñëwal nga ñaan ma ma may la li nga bëgg ko xamni boko ñaanu mu mere la kay wax dëgg yalla ñëwal nga julli sangul ba set jappal ba sel ñu ñëw julli so xamut la ngay tari demal nga jangi gis nga suñu temps bi ñu jël def ko ci li oustaz Alioune Sall di wax ndagar wala nañ ko bayyi te dem jangi alquran xam ni ngay julle amna ci solo xam saar yi ngay tari baax na ci waaye ñun suñu yoon léeg-léeg billaahi bu fekkonte ni jigéen dañ ko ni deel biral tey dëkk bi toj tey nga dégg saar yoo xam ne doo xam foo koy nettalee waaye yàlla nañ yàlla dolli sutura lii may wax nag damaa bëgg rek ñu koy dégloo xel bañ koo dégloo doole nañ ko dégloo xel bañ koo dégloo doole yàlla nañ yàlla dolli sutura baax te yàlla jàpp lañu bu baax a baax a baax a baax may nuyu sama caméraman Mousse bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yokk ba mu yëg ko yàlla dolli suturaam bu baax a baax di nuyu nag tubaab fakkal la dama koy dolliwaat Moussa mbay ak Moussa Ndiaye tubaab la ñu nekk fee fële ca marché ah yori yor alimentation général boobu di te jokk rek nag ñoom itam ci sëriñ Mansour si borom daara ji yàlla leen yàlla sàmm làq leen fa yàq yeggul may ñu sëñ Modou bu baax a baax nee naa leen teint bi ku mu jaaxal demal boutique gi sëñ Modou quantité ak qualité ma nga fa waaye laat nag laat bool ma nga fa de dégg naa gars yi fi mu ne nii koor gi ku taaje sa borom kër ndogu day bëgg ndax qualité bool yamu lay jox ak qualité kaas yeeg karaaf yeeg macha allah lépp rafet yal yàlla doon sutura bu baax a baax. tubaar fakkaal la may nuyu la DG Pape Doumbouya démb nee naa leen bato doy am te gis nga yàlla kii mu ne moom la moom la bu ko ko bañal nangul ko ko DG yàlla la yàlla sàmm làq la fa yàq yeggul ñoo maa ngi ñaanal yàlla prestige képp ku fi nekk di personnel tey liggéey maa ngi lay ñaan nga tey mu dëgër te xam ne loo xaarul du la fa fekk loo xaarul du la fa fekk yal nañ yàlla dolli sutura ñu dem ba ñu ñépp santé suñu bopp ci prestige loolu mooy yéene DG Pape Doumbouya kon nañ tey mu dëgër bu kenn xàddi bu kenn xaddi balaa neex il faut mu metti ba pare yal nañ yàlla dooli sutura may nuyu sama yaay bu baax sama gorom benn sek xaddi fay di nuyu samay njëkkee waaye maa ngi nuyu tubaab fakkaal la waa marché saam foofu nga xamante sam ndey nga fa ak mère sagar sama yaay jooju binteel ba ñoom ndey laay ma ngi nuyu ñëpp bàyyuma kenn tubaab fakkaal la waaye dama fi jógewaat delluwaat tey lima lii ma sol penda sila mo may ñawal Penda Sylla macha allah maa ngi koy ñaanal yàlla lu mu ragal yàlla bu mu ko gis Penda yàlla la yàlla sàmm làq la fa yàq yegul su ma ëndee si da ngay daw loo jàpp danga koy bàyyi ñawal ma ba mu rafet ñawal ma ko ak yéene te lu ma la fay nga ne ma jëlal maa la ko mayaat ci xol bu sedd guy Penda yàlla na yàlla dolli sa sutura bu baax a baax a baax a baax yàlla bàyyi la ci sa liggéey boobu ba nga tedd ci ak koo ci bëgg a teddaaleel ma génn fa mu ngi jàkkaarloog Ibrahima Ndiaye mi jaay collier yi maa ngi koy nuyu waaye damay xuus dem ba ca xaadim mooy jaay ay dàll duggaat dugg noonu ci màgget macha allahu takkaay yaa nga fa lu mu rafet dayul te moom day jël ni ma am takkal binta màgget loolu lay defal defante ak man takkal nga sañse montre chaîne plaque lépp la ma màgget di jox kon màgget yàlla na yàlla dool sa sutura ah xaadim it noonu lay def dàll bu rafet bu ne mu ne ma ma am solal yàlla yàlla jàppale may nuyu Sofi Saw ndax tubaat tubaar fakkàlla day dagg lu mètre lu mat jox ma ne maam solal maam jaaram mbay ñang noonu lay def waaye tubaat fa fakkàlla maam ñaaw kenn du yow ci man ma nuyu sama yaay yépp sama bàjjen yépp maa ngi fii Prestige jàngeen jëf